subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim allahumma allimnaa bimaa yanfa'unaa wanfa'naa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilmaa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñoo ngi ñëwaat di sant borom bi tabaaraka wa taala di julli day salmal ci sang-sang yi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaaw loolu ñoo ngi ñëwaat di ànd ak yéen suñu jotaay ci ñàngum tajwid bu neexee yàlla mu nar a nekk jotaay sunu juróom ñeenteel jotaay incha allahu ñu bëgg koo ànd ak yéen tey ci ñàngum tajwid ginnaaw biñ ko dooree ba léegi di ko jaarale nag ci seen bi nga xam ne moom ngeen di topp mi Daara Koki TV ci équipe bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw di ko saytu ba loole mën a dégg di ko gis eh, seeni effort la ñoom ñi nga xam ne ñoo si nekk yàlla na yàlla fay di sant tamit ñi nga xam ne ñu ngi topp jotaay yooyu noonu biñ tàmbalee ba léegi léeg-léeg ñi posé ay question ci whatsapp bi ci numéro boobu nga xam ne léeg-léeg ñu affiché ko 77 547 39 56 di leen sant bu baax a baax ci topp gi ni topp jotaay yooyu noonu ak yitte biñ ci yittewoo mu nekk loo xamante ne si lu sedd xol la aussi tamit li firndeel lu baree bari la di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu euh, jëriñ leen te jëriñ mu mel na nag tey sunu jotaay bi day ñëw rek sosu ci jotaay bi nga xam ne moo weesu woon ginnaaw bi ñu doore woon ci bunt bu mujj ci atte yi nga xam ne moo aju ci nuun gunu nekk tuddee ko nunu saakina wala sax at tanwin ndax gisoon na ñeent atte ci loolu ba sa njëkk attey izhaar mooy ci ay araf yoo xam ne waxoon nañ leen saabu ñëwee ci ginnaaw nun googu ak tanwin gi dañ ko woon a feeñal ban jógee ñëwaatoon nañ ci attay idoxaam muy juróom-benn araf yoo xam ne waxoon nañ leen saa boo ko gisee ginnaaw nuun googu ñu nekk wala tanwin gi dañ koo wan a ban sa jógee tamit ñi ñëwoon ci ñetteel atte bi mooy benn araf boo xamante ne waxoon na leen saa boo dañ ko gisee ci ginnaaw nuunu gunu nekk ak tanwin dañ ko wan a jox attali naan ba ñeenteel atte nga xam ne moom lañ doore woon ay bis yi weesu ñu tuddee ko euh, at tey ixfa ixfa nag waxoon nañ leen ko buñ ko waxee mooy loo xam ne dafa nëbbu moo tax araf bi boo koy jàng wala sax juróom fukk juróom araf yoo xam ne waxoon nañ leen saa bu ñëwee ci ginnaaw nun gu nu nekk wala tanwin gi at tey ixfa nga koy jox mooy dangay ngay mel ne booy jàng araf bi danga koy jàng ci anam ngoo xam ne dafa mel ne dangay ngay izhaar waaye tamit mel ne dangay ngay kon ci diggante ci diggante bi la araf bi nga ban koo shadda ba noppi nag gunna gi nga gunna gi wala nos ga nga fexe ba desal ko ba ku lay dégg xam na yow fii nii def nga si ak nos ci araf bu gi kon lii mooy al ñëwoon nañ nag ci ñëw ci araf yi topp ko comme ni ko Suleymaan Jamzuuri waaye ci baytam boobu mu ne sif za sana kam jaada shaxsun qad sama dum tayiban zid fiitu qantan zalima kon loolu araf yooyu lañu bëgg a topp bu nekk ñu indi si ay misaalam ndax fekkee ci nun gu nu nekk léeg-léeg mu ñëw ci ñaari anam léeg-léeg mu ñëw ci benn baat wala ci ñaari baat léeg-léegi tamit bu dee tanwin bi la benn baat ñaari baat rek la mën a composé woo ku ñu doon topp ci jataay bee danga gis ne indi woon nañ misaalu soit indi woon nañ misaalu alzaal indi woon nañ tamit misaalu afa cuun kon ñett leen indi woon yoo xam ne boo ko génnee ci fukk euh, juróomi day mel ne dafay des fukk ñaar la incha allah yooyu ñu jéem a xool ba xam danañ ko mën a indi ak seeni misaal ànd kook euh, ñi nga xam ne ñu ngi toog kon mu mel ne at araf bu njëkk bi ñu ngi koy jox Ahmadul Xadim mu jàngal ñu fa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها الذين أو انفروا جميعا صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم وشكرا على هذه القراءة الجميلة am na ko yàlla fay moom mi jàng ci alquran ju neex jooju ci anam gu rafet googu ci riwaayatu war gis ngeen jàng na indi nañu ñett barab ci misaal nuun goo xam ne dafa ànd ak faa ci ñaari baat mooy wa in faatakum wa in faatakum di fi jaadu rek mooy atta ixfa parce que faa gi moo ñëw ci ginnaaw nuun gi te faa ci xuruf ixfa la bokk ndax Souleymane Jamzuri waxoon na zid fi tuqan fii gis nga moo tax euh, barab boobu mu jàng ci suratul mumtahana indi na si misaal bu correct ginnaaw gi tamit ci surat nisa jàng na misaal indi nañu nun goo xam ne dafa ànd ak faa ci benn baat mooy bi mu waxee xudu xidrakum fanfiru fanfiru subata fanfiru nun la goo xam ne dafa dajeeg faa ci ñaa ci benn baat dafa jaadu rek mooy atta ixfa ndax faa ñëw na ci ginnaaw nuun te faa ci xurufu ixfa la bokk ñetteel bi mooy dem na ci baqara jàngal ñu tamit misaal goo xam ne tanwin la tanwin bu dajeeg euh, faa te faa bokk ci xurufu ixfa moo tax ngeen dégg mu jàng lu mal ne summun bukmun umyun umyun fahum tanwin la goo xam ne dañoo ci ginnaawam faa la ci ñaari baat la amee kon mbokk mi lim jàng yooyu yëpp wax dëgg yàlla ay misaal la yu am solo boo ko jëlee nga xiyaas ko ci yeneen misaal yu mel noonu ci alquran di nga si jëriñu bu baax a baax a baax kon mu mel ne gis neen fukki araf ak ñaar fukki araf ak ñaar ci xuruful ixfa biñ tàmbalee ba léegi sif da sana kam jaada shaxsun qad sama dum tayiban zid fii tuqan dans zalima kon ñett ñuy dese mooy tuqan dans zalima gi kon ñi jël xaraf ta eh, ta ta mooy ta bu ubbeeku bi wax ñu taaw marbuta ta maftuha ñu jox al ax Baye Cheikh mu jàngal ñu indil ñu ay misaalam ci ñett barab bismillah falyatafaddal mashkuran أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ما شاء الله شكرا الأخ على قراءته الجميلة dégg ngeen ko tamit mu jàng ñaari barab waaye ñaari bërëb yëpp at maanaam ñett misaal yi soxla parce que boo xoolee ci bërëb bi mu njëkk a jàng moom axuna Baay Cheikh jazaahullahu xayran ci surat al imran bi mu ñëwee ne ulaika jazaauhum magfiratum min rabbihim wa tajri wa jannatun tajri min taxtiha al anhaar foofu ñaar misaal ñëw na fa wa jannatun tajri tanwin la tanwin moo njëkk ñëw ànd ak taa ci ñaari baat wa jannatun tajri la fa jaadu foofu rek mooy atta ixfa lu tax ndax gannaaw tanwin ga taa moo ñëw ta taa xuruf ixfa la bokk moo ngeen dégg mu ñëw nosal ba noppi nëbbu tanwin nga mal ne ku jàng diggante izhar ak idgham wa jannatun tajri lu mel noonu la def ci boo jàllee mooy min taxtiha al anhaar min taxtiha nuun gu nu néeg la boo xam ne dafa ñëw dajeeg taa ci ñaari baat dajeeg taa ci ñaari baat waaw te xam ngeen taa ci xuruuf ixfa saa bu ñëwee ci ginnaaw nuun gu nu néeg muy nunu saakina da nga kaa waroon a jox atta moo tax mu ne min taxtiha lanhaar bi mu paree tamit dem na ci suratu anfal jàngal ñu fa misaal bu am solo boo xam ne ëndil nañu nuun gu nu nekk bu ànd ak bu ñëw dajeeg taa qul lilladina kafaru in yantahu yantahu nuun gu nu nekk la gu dajeeg taa waaye ci benn baat la amee kon macha allah jazakallahu xayran ngeen nan indi misaal boo xam ne daad la ci ñett barab ñu jox axuna cheikhuna mu jàngal ñu ko incha allah falyatafaddal mashkura قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد قالوا ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ñu ngi ko jaajëfal moom tamit wax dëgg yàlla ci jàng bu rafet boobu mu jàng ngeen gis ne indil nañu ñett barab te barab bu nekk am misaal bu mu làmboo ci daat boo gisee lim njëkk jàng ci suratu saba indil nañu nun goo xam ne nun gu lu néeg la waaye nag nun gu dajeeg daa ci ñaari baat dégg ngeen ko mu jàng ne qulin dalaltu qulin dalaltu qulin dalaltu fa adillu ala nafsi foofu ixfa rek la maa def foofu ndax lu tax daat bokk na ci xuruuf ixfa dafa ñëw ci ginnaaw nun gu nu néeg ate boo ko jox bu dul lii rek yàq nga waaw moo tax boo koy jàng dangay ngay nëbb nuun gi nga mën ne ku jàng diggantey izhaar feeñal ak idgham dugalante waaye nag bu ko tashdid bu ko sidda bul shadda qul in dalaltu indi na misaal nuun gu nekk bu ànd ak daa ci ñaari baat ba nopp indiwaat na misaal nuun gu goo xam ne dafa ànd ak waaye nag da dafa ñëw ci ci benn baat dégg ngeen ko mu jàng ci suratu Huud bi mu jàngee ne falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjil aw wa amtarna 'alayhima ah ah wa amtarna alayha hijaratan min sijjil mandudin musawwamatan inda rabbik mandud nun gu lu nekk bu ànd ak baat ci benn baat ixfaa rek moo fa jaar jaadu ndax daat ci xuruf ixfaa la boo ko dafa ñëw ginnaaw nuun gudu nekk ci benn baat bi mu paree fi mu ko jeexalee mooy indil nañu ci suratul muminuun misaal boo xam ne tanwiin gu dajeeg daat la ci ñaari baat ndax tanwin moom ñaari baat rek la moo doon moom moo tax ngeen dégg mu jàng ne قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين li ñu fiy tee mooy وكنا قوما ضالين قوما tanwin la moo topp ci ginnaaw tanwin gi daat kon li fi jaadu fi mooy attay ixfa da ngay nëbb nun gi bu ko feeñal waaye bu ko dugalante qawman dallin ñu jox mbokk mi Abdul Qadir mu jàngal ñu indil ñu ko nag ci ay misaal ñett barab yu wuute ci alquran fi muy àndaleeg noonu saakina ci benn baat ak ci ñaari baat ak fi muy àndalee tanwin ci ñaari baat ñu déglu ko mu jàngal ñu insha allah falyatafaddal mashkuran هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته